Euh, man yaakaar naa ni wax waxu supprimer ASPT wala ministère xëy na wax yu taxawul la parce que suñuy fàttaliku y a dix ans vingt ans ci gannaaw Sénégal majeure partie destination touristique yi comme euh, Maroc comme Tunisie comme Égypte ay destination touristique yu mag dañ ko fi romb bàyyi ko fi et de très loin loolu lan moo ko waral c'est parce que Sénégal temps yi yëpp boobu ba léegi amuñu benn visibilité bi war pour que ñu mën ñu xam partout dans le monde tey jii son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall am na conscience wu créer benn agence bu ñu tuddee agence sénégalaise de promotion touristique loolu pour relancer secteur touristique la permettre également aux professionnels yi nga xam que ni que c'est des sénégalais yuy yëngu ci wàllum tourisme ñu mën a am dara lu ñu mën a gagner ci tourisme ngir soxali économie wu Sénégal donc foog naa que ni que tourisme am na solo tourisme am na solo wax ko sax xëy na wax bu yàqu la parce que ñëpp xam nañ ko léegi vu les enjeux yi nga xam que ni que am na ci monde bi ak tourisme emploi yu muy générer ci monde entier bi tey ji agence bi soxla nañ ko soxla bi nga xam que ni que day permettre ñu gën a mën a xam Sénégal fépp surtout ci pays émetteurs yi loolu lañ leen tuddee mooy maanaam dëkk yi gën a mag yi nga xam que ni que mën nañ la permettre nga am ay touristes yu bëri yu ñëw sa dëkk. alors agence bi mu ngi def wareefam ndax tey jii ñu ngi présent en tout cas ñu ngi fépp ci pays émetteurs yu mag yi ñu ngi France ñu ngi Espagne ñu ngi États-Unis ñu ngi Italie. bref fépp en tout cas fi nga xam que ni que yaakaar nañ fa que ni que touristes yi mën nañ fa jóge en masse ñëw biir Sénégal donc gëm naa ko ni que ñuy wax waxu suprimer agence sénégalaise de promotion touristique si jamono jii ñu toll ak enjeu yi tourisme am foog naa ko ni que xëy na ñàkk comprendre lan mooy enjeu wu tourisme la ak xëy na importance bi visibilité wu mm, en tout cas destination am euh, ci euh, wàllum développement wu tourisme donc encore une fois dama si profiter ah di ñaan euh, képp kuy professionnel di ñaan également population sénégalaise ñu xam que ni que tourisme c'est une affaire de tous